ci li ñu si sax mooy ab boo xam ne maanaam semaine bu nekk dañ ko ci amal li am ci journal bi di bi nee ki nga xam ne jamono moo fi nekkoon semga di général Cheikh Wade nommé nañ ko ambassadeur Sénégal Royaume-Uni ca Grande-Bretagne yéen kay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la soo moytuwulee benn bokk yaakaar mën naa pucc xoo ay risque mën naa am bu dee président Macky na caa am li am foofee ci la APR jugee nag di pëccxooy ci biir journal bi ministre Moustapha Diop maire bu Louga nee na candidat la ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen i kaay gi du xëy ci xëtam mu njëkk ne Macky Sall kortata marème daat nay wax député yi lu leer lu mel ni midi nee na leen nag maanaam bu ngeen xàjjali ko yéen waa Benno Bokk Yaakaar maanaam du ma leen jàppale du ma leen baataral campagne ndax bu ngeen xàjjali ko dañu leen di gagné te man am na loo xam ne xajuma si Macky Sall na leen bu ngeen booloo ci seen biir leen jàppale leen baataral campagne waaye nag su ma tànnee mbër maanaam ngeen xaajali ko boobaa dama ciy kay gi di réew mi ko di du ñu xibaar naan ñu ñi jàpp gi ñu jàpp Birame Souleye Diop maanaam teguwul fenn te dañoo violé li nga xam ne mooy loi bi article 61 constitution bi ak règlement bu assemblée nationale Dakar Times xëy du ñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 Karim Wade ak Khalifa Sall génn guñ ci mballe gi ndax lu xaalis trésor yéen kay gi di source a xibaar naan ñu député yi bokk ci coalition benn bokk yaakaar ñoom ba ñu demee ca palais ba dañu doon wax ak président Macky Sall na ko élection 2024 bu jàllee assemblée nationale bi mën nañu ko tas te bu ñu ko tasee prêt bi nga xam ne def nañ ko ci banque yi nan la def ba fay ko loole nag Macky bi ko ko député yi waxee faaliwule na maanaam tontuwule na bu leen Macky tonto Bob Marley leen tonto yéen benn bokk yaakaar pëcc xooga commencé na ndax ki ne mooy na benn bokk yaakaar jamono ji journal bi nee na ay jafe-jafe ma maanaam séntu leen ko yéen kay gi de la tur bi na nee na parti socialiste ak AFP ay parti lañ yoo xam ne ay yóbbaale ma lañu waaye nag jamono ji mbaadu jëmuñu ci ak nërmeloo ndax gato bi nga xam ne moom la ñu doon ma caato di ko lekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam jeex na tàkk yéen kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu màggalug Tuuba gi nga xam ne moom la ñu dëg ma la soo muy tuulee dina am ay jafe-jafe ndax comité d'organisation màggalug dañu doon amal ab nañ ci lu jëm ci wàllum assainissement ndax gis nañu ne Tuuba bu askan wi am ay jafe-jafe rawatina màggal gi màggal gi nga xam ne ci digg nawet bi lay nekk journal bi nee ci biir CRD bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mi nga xam ne moo yor kàddu Serigne bi jiite comité d'organisation bi daan nay wax ci lu jëm ci wàllum assainissement bi ak ñàkku ndox gi nga xam ne moom la faral di nemmeeku ci Touba daan nay wax tamit ne Touba ñaari yoon ñett rek bu ko tawee moom daan nay wax tamit ci CRD bi ci lu lu toll ci cent quatre-vingt-neuf mille trois soixante et un lu toll ci mille deux cent soixante-six ci jury mille cent trente ci ay centre journal bi nee épreuve yi nga xam ne moom la ñu def élèves yi nee nañu yomb na yéen kaay gi di réew mi ko di cee nee na askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ca diwaanu Kafountine ñoom jamono ji jaaxle nañu lool ndax dafa bëri si doom yi ñoo xam ne dañoo jëloon gaal gi te ba léegi amuñu ci ñoom benn xibaar yéen kaay gi de ko di a dem ci bitim réew moo ne faatu nañu am na lu ëpp juróom fukk yoo xam ne dañoo réer ci biir ndox mi am na ñeent ñoo xam ne gis nañu leen li yéen kay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu gaal googe nga xam ne moo doon dem far tëmb ci waaxu Saint-Louis cinq heures du matin la àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn lu toll ci juróom fukk ak juróom benn ñoo nekkoon ci gaal gi Babou Sène mi nga xam ne mooy consul général bu Sénégal ca dax la daan nay wax ne avant tabaski gën ngaa gàtt lu toll ci fukk ci bato jóge nañu Sénégal ma jóge ci wàllu woowu dem ca diwaanu France ci réew mi quotidien wax ci ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères ca

xam ne jamono ji moo commencé waata loole la muy firndeel mooy lajj gi nga xam ne état bi lajj nañu ko ci politique bi nga xam ne moom la ñu jagleloon xale yi yéen a kaay gi de la turbine nee na Barça wala Barsàq gi commencé waat na waaye en tout cas li ambades ak li gudd maanam ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñooñee ñooy responsable la yéen a kaay gi de bés bi xëy duñu xibaar nan ñu ci diwaanu Kafountine lu doy waar lu garaaw moo fa xew ndax dafa am benn xale bu góor boo xam ne dem na ci gaal gi te bi mu dem ci gaal gi bis bi muy dem bis boobee da doon jiita la bàyyi gan ya bàyyi fa soxna sa dugg ci gaal yi ba léegi ay mbokkam gisuguñu ko